tay liñu indi moy combat Modou Lo Balla Gaye combat bi demagul fenn ciow li ne cour yow lan mo si sa xalat ak sa gis-gis. xadi pourquoi yeen bu ngeen def euh, round up pourquoi avant combat bi dafa am lu xew. lan mo xew. merci xadi bu ngeen mo mune critiquer dima waxal samay defo ngir yalla <laughs> niko salbe di waxe suma amé ndam wax wax len ko. combat modlo Lo Balla dafa am luma len ci waxone ne ni ci agité wu autour ay téléspectateurs la ñuy doon le jour J dañuy sétane ndax combat bi ki koy teug dina doon surprise pour tout le monde je je vous l'avais dit mais ngeen def comme si rien n'était c'est pas bien ñepp la koy wax nak bu dee critiquer dañ may critiquer bu ma erreur personne ne me pardonne rien personne je dis ne me pardonne rien je l'admets merci jërëjëf xadi man xam naa ni noon am na de d'accord naa mais ñi ñu juumloo ci man ñoo bari ñu bari dañ leen a juumloo ci man ñu may jugé te xamuñu ma. Mhm. baal naa leen maak yow ñoo bokk foofu jikko baal naa leen mais nit ki soo ko fréquenté wul mënuloo xam mooy kan ak mooy lan juumloo nañ ma nag ci nit ñu bari billaahi barke alxuraan maa ngi koy giñ ci yonent bi juumloo nañ ma ci nit ñu bari ñu may jugé di ma critiqué te xamuñu ma fréquenté wuñ ma. peut-être ben nit mo len di wax ben affaire ci Lamine Samba mais ngir yalla ak yonent bi suma waxe lo xamni amna ñepp dañ koy black out kenn du ko wax ma ne leen combat Balla Gaye Modou ku ci wax do ko tëgg ma limal la diw du ko tëgg diw du ko tëgg diw du ko diw du ko ki koy tëgg dina don surprise pour ñepp mu don ma ne leen bu boba télévision future média dina ci am rôle bu am importance l'avenir m'a donné raison. boobu xamoon nga. boobu xamoon naa fekke naa fa nase ak fu mais comme ñi nga xamante ñoom ñoo ci war communiquer ñoom ñoo ne duñu ci communiquer je me suis tue. Mhm. mais xamoon naa ni combat Balla Gaye ak Modou Lo Gaston Mbengue moo koy janvier 2019 le dix koy président Macky Sall le ko tuddee te incha rabbi télévision Futurs Média, dina ci am rôle bu am importance je vous l'avais dit. on l'a fait face à face bi am na sax ñoo xamante dañ doon wax naan non face à bi du doon TFM du doon lii du doon lii du doon mais l'avenir m'a donné raison. Mhm. waaw mais euh, bu weesoo loolu l'avenir t'a donné raison loolu nangul nañ la ko mais ñaari mbër yi keroog face à bi yéen a ko organisé yow ak euh, Malal yéen nekkoon euh, ci micro bi coow li am diggante ñaari mbër yi depuis seen premier combat ba léegi pour lan. mais xaron nga lolu yow wa mais da ngay gis yenen mbër di beure pare nek ay ya gaañ yag nga dem ci face à face mu toj wa mais mood Lo Balla Gaye beneen dimension la face Tyson euh Balla Gaye eggul face à face Yekini Balla egul wa amna am ay face à face yu bari yo xamanteni ni modulo Lo ak Balla Gaye ma rafraîchir le sa mémoire biñ def bu bu biñ defé mbour Balla Gaye moo ñëw Modou yaa koy fàttali bi leen hélicoptère yi di teeru. non boobu Modou moo ñëwoon waaw Balla Gaye ñëwul waaw. waaw. Hmm? waaw bërki démb bi GFM entertainment tëggee combat Eumeu Sène ak ballagay bi ñuy def euh, seen face seen face to face à euh, ñëwul Eumeu Sène moo ñëw loolu yàgg na ci face waaye dafa di combat Balla ak Modou fan si yi ñoo ko gën a bëgg ñaari mbër yi. Nous ciowlu fi amone ñu ne euma lan euh, lan wala bombardier ñu précipité wu dem adversaire avant ça prouve que ni ñom ñaar leen des arènes cela veut dire que nous si lu am danat modlo moko gënal am proximité entre euh, Parcelles ak geyeway man ma posé question ne Balla Gaye yow ak fans kan moo ci bëgg combat mu ne combat bi maa ko tippoo combat bi maa ko tànn combat bi maa ko bëgg ndax ma Modou Lo dafa am fu ñu jaar ci mbapat ci àdduna ci lépp ma bëgg am kum lu may leeral comme combat bi sama combat la Modou tontu tontu ko lan fans yi chaque jour moo wax leen ne leen combat bi bu leen ko yenu diisul combat bi sama combat la <laughs> ça veut kenn ku ci nekk da ko def sa défi personnel kenn ku nekk da nga ko jël def ko sa yëfu bopp du dégénéré nag ndax Modou Lo wax na leen ko wàllu teen la ku ñëw ci bunt bi ngay yem. mais yaakaar Balla Gaye Balla euh, yokk ci daal ne ñu ngi ko koy tooñee sax si réseau si réseaux sociaux yi responsabilité la Modou Lo responsabilité la xaw ma kan responsabilité xaw ma kan responsabilité la kon ça diir dire que ni ñoom ñaar am na lu ñu logalante Modou Lo du baal mukk ci àdduna Balla Gaye lim ko daan. Balla gay du baal mukk muuduloo Lo lim daan Eumeu Sène dégg nga ma. lu tax lu tax merci. dafa tenté ñaari yoon réussirul ci Eumeu Sène Modou Lo ñëw daan <coughs> Eumeu Sène jël boo xam ne kenn mësul gis loolu ci àdduna te euh, Modou balaa ko daan. Mhm. te Modou ak bala ñaar la woon <coughs> kenn moo doon dem kenn toog bi ñuy dajee ñoom ñaar 2009 kenn moo doon dem kenn toog Balla bi mu daanee Modou Lo yoonam woowu la jaar ba nekk roi de arènes. Mm-hmm. kenn moo doon génn kenn toog te fi mu toll nii booy xool am na ay jamono ci ginnaaw Modou moo doon wax Balla dama lay maal du ma du ku nekk ci saako du ma la fa génne. Mm-hmm. kon booy xool Balla li ko may pour mu dajewaat nag mooy li mu am ci Gris Bordeaux. Mm-hmm. moo ko may mu amaat te Modou doon na wax dootuma bëreeteeg Balla Gaye Balla Gaye dootu wax dootuma bëreeteeg Modou Lo xaalis boole na leen te tam làmb boole na mais làmb ju neex lay doon. mais du dégénéré. mais keroog bu nekkul woon sécurité bi. dina dégénérer parce que yow ñun ñu ngi fa won gis nañ li fa am supporter yi coow li xeex bi bu nekul won supporter yi affaire yi dina dégénérer yeen ñi ñep sen 400 seen 100 mètres yi gis nañ ko bien sûr man dawna daw nga dawna ah. daw ba raw ci ngoro la yow daw nga mhm. keneen ak keneen dawna parce que liñu gis mom lañu xam tout souvent dañ koy wax bour ayul dak yaay ay bu gisee balagay nga baal ma bu fekkee li ñu wax moo am modlo Lo moo Aziz Ndiaye moko sorti safara Je Balla Gaye micro bi lum wax sotti kenn safara xeex kenn xuloowuloowuma kenn modlo bu fekkee rak Aziz molo sorti safara sama man ak yaw la donc il faut supporter, yi il faut amateur yi il faut sénégalais il faut ñuy seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ak fo mëna nek ci aduna nga xamni ñaari doomu sénégalais lañu d'abord mhm. ñaari mbeur lañu d'abord ñaari xarit lañu d'abord waye ay adversaire lañu. xarit mom amul amul digënté Modou Lo Balla Gaye waaw d' accord mun nañ bañ a xarit comme yow ni nga ko waxé mais dama japp ni adversaire lañ ben moment comme ni Balla waxé né su ko nexé su face à face bi jéxé mu jox ma loxo jaar né ma jaar né ko nexé mu jaar ne ma taxaw mu génn kon cela ba dire que ñoom ñi ngi sóor ni warul dégénérer benn yoon ñoom ñaar ci seen diggante souvent xadi nga baal ma damay jël exemple ci yow boo demee euh, benn face à ñu def la fu naka sul noo est-ce que mbër mi moo la ko def du ko yëg des fois da ngay gis fan su bu xër xam ne bu gisee xadi fay wala Lamine Samba saaga ko rek lay bëgg léegi gis koo xamante ne malgré tout dina taxaw discuter ak Khady fay mbala discuter ak Lamine Samba Khady lu tax nga box wax lii lu tax nga bind lii lu tax nga posé question ngeen waxtaan gentleman agreement am ñoo xamante ni non non non dañuy làqatu ci réseau sociaux yi di la saaga am na ñoo xamante ni dañ lay yóbbu ci sëriñ di la liggéey am na ñoo xam ne dañ lay bàyyi garaawul mais am na ñoo xam ne boo rombee soon ko ñu ne mbër mi moo ko yónnee wala mbër mee moo ko yónnee léegi nag yooyu yëpp ce sont risques ce sont les risques du métier il faut nga mën a ko allier mën a xam foo toll mën a xam li ngay def mais bañ a ragal Mm-hmm. parce que soo ragalee doo dem. Mm-hmm. Modou ak Balla Gaye mënuñoo fexe fexe fexe ba bu ñuy bëree ñoom ñaar fan su Balla Gaye dañuy ñëw dugg ci géew bi di padd Modou Lo wala fan su Modou yi dañuy ñëw dugg géew bi di padd ci Balla benn arbitre moo fay taxaw ñaari mbër moo fay taxaw ñu soufflé ku man sa moroom duma. Mm-hmm. ay violence yi du tax combat bi bañ a am ay saagante du tax combat bi bañ a am. combat bi dañ leen fay bari te ku Gaston il ne mange pas ses mots ku xam Gaston Mbengue xamni il n'a pas sa langue dans sa poche ku xamni Gaston Mbengue xamni kenn du ko bi ndax politique la politique te political président Macky Sall kenn du ko mu nara amé arène nationale jour bobu di nga gis yow je la ko wax bind ko nga denc ko ci sécurité avant pendant et après man maa la ko wax lamb président de la république di waxum c'est le président de tous les sénégalais. Mhm. moom kese bu doon ñëw une inauguré arène bi day fees. mais Balla Gaye Modou <laughs> la ilaha illallah xadi combat xadi il gis combat bu dàq combat amul. ñi naan non Balla mënatu amatul doole parce que lan ak lan ak lan non non non Balla ko man bête noire am mooy léeg non combat bu neex lay doon. Mhm. wax ko.

dama fekk lépp pare te bi ma paree rangé wu ma fa benn chaise rangé wu ma fa bâche je ne suis pas le décideur c' est Mamoudou Ibra qui est le directeur général de la télévision Futur Média Birane et son adjoint Ndiaga Ndour c' est le directeur de la télévision Bouba Ndour c' est le directeur des programmes ñun dañuy wax ñëw leen toog wax Malal Junior Lamine Samba yéenay présenté ñu pare ñu takkal ñu suñu micro suñu micro sax dañ ñu koy takkal takkal ñu suñu ay micro bu ñu paree ñu jël suñu per yoon dem suñu yoon pare nañ ci dé décision yooyu nag ay yéenay bu ngeen di da ngeen war a limal naa le ñeenti nit yi ci télévision Futurs Médias nga dem poser leen question boobu mais man nekk ma woon koo xam ne maanaan ranger leen chaise tegal podium defal lii defal lee déedéet dañ maa liggéeyloo ma ñëw wax après dem sama yoon. Mm-hmm. combat bi pour yow kan moo siy favori. cinquante cinquante. ñom ñaar mo do lok Balla gay 50 50 est-ce du ragal non dang may ma ragal man yo <laughs> yo xam nga ne man duma ragal da c'est c'est à dire so ma né 50 pour 50 rek dang may wax lutax lutax merci Balla gay mo daanon modulo Lo mm-hmm. Modou Lo daan eum sen ñew bëri ak la de gel margal lu ci am daan ko kon ki daanoon mo joxe revanche

à 6 mois so ma laajee ma lay jox pourcentage bi mais moment bii ma lay wax psychologiquement 50 50 mentalement 50 50 moralement cinquante cinquante ñoom ñaar ñëpp cinquante cinquante te fi ma seetee cinquante cinquante ni Balla Gaye daanee Gris Bordeaux noonu la Modou Lo daanee Lac de Guiers numéro deux mhm. mooy bëre ba temps bi jeex mhm. mhm. ban conseil nga leen di jox ak yi bi am coow li am munda na dégénérer ba bu dégénéré bu jur lenen yalla na ma yàlla baal te ma li dal football bi dinañu dal li dal yenen discipline yi dinañu dal te ñaanuñu ko yalla dégénéré mom yaakaar ni yi conscient nañu que ni Khady nga bal ma de su nekkul won ñun ñëpp suñu professionnalisme kérok face à face bi doon da déborder bu baax appel calme bobu Modou def bala Gaye def ko te ñu sakko ko ñun ñu ñu def ko loolu mo calmer lo ñu bari mais esprit chauffé won na trop trop trop trop trop may ñaan nga xamni ne ñoo jege mbër staff restreint Balla Gaye staff restreint modulo ñu gëna professionnel gëna vigilant parce que boy and ak mbeur ñi and ak président de la république depuis indépendance ba tay est ce que mëss nga see gis kenn ku ci door nit wala kenn ku ci këbb nit et pourtant des fois dina dégénérer des fois bërki dem mbeuri gis na ben lapsus bu ndaw président dem Thiès am ben way bu introduire ñeu tok wax président liiwam bu doon kiiwu mbër yi la ñu dóor ko mais da nga gis dañ ko régler ak diplomatie mbër yi aussi tam war nañu xool seen staff yi ñi nga xam ni ñoom ñoo leen jege nañ lañ leen di defal ba ñu am moral de fer c'est important Khady Faye ñu am moral de fer am esprit de dépassement même bu ñu këppee kii gàllaaj nga xam ni lii dafa war làmb dafa am këppante gàllaaj làmb dafa am suulante làmb dafa am sullante laal dafa am yàqante làmb yooyu yëpp lay boole yow mi nga xam ne yow yaay gérer mbër mi nag yow yaay gérer loolu yëpp du côté de Rock Énergie comme du côté de Balla kon nañu defaraat xol yi xoolaat waxuma ñu dàq kenn nag xoolaat encadrement yi gën leen a former ñu xam ëllëg si biir fan la ñuy teg seen tànk parce que bu encadrement si bu encadrement dégénéré supporter day dégénéré day répercuté bu encadrement calmé Supporter yi dañuy calme kon lepp ñu ngi koy xol des fois da ngay gis naan ah, am bari naan yëngal leen ci kaw suuf mbeur ñaari supporter bu ñu gis seen ñaari mbeur wala seen ñaari encadrement di xex ñom dinañ xulo ci kaw ba xex kon encadrement dafa am dafa am solo mhm. waxuma nak dafa bon encadrement mais nañu xolaat bu baax li ñuy def nañu xolaat bu baax ni ñi nekké nañu xolaat bu baax ni yenn yi parce que ay détails lo and ak kilifa di ko thank you Merci de vous abonner à Pikini Productions. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et laissez un commentaire.